di rek dugal ko ca mhm. ñu daal koy jagleel alaaji jo alaaji euh, Abdoulaye Diop Bichri mhm. donc bu fekkee am nga benn numéro rek waaw 77 77 201 201 20 20 37 37 77 201 20 37 mi ngi noonu numéro bi dinañ ko affiché ah, léegi ci euh, bas écran bi d'accord su ko defee euh, mbokki jullit yi ak taalibe yi barkeelu rek ci wave su ko defee waaw waaw. Hmm. Eh, di delloo njukkal rek eh, maam Seydou Ndiaye. Hmm. di delloo njukkal itam mboolem jigéen ñi. Hmm. di doxee itam soxna yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi. Eh, di doxeel suñu jigéen soxna Soda Xuma. di julli géej gi. ndax barki démb. sëriñ Mountakha Bachir. daf ko jiital ci kuréelu julli géej gi. kon xam nga ne sëñ baa ngi bàyyi xel jigéen yi nga xam ne nii. ñu ngi teg seen tànk ba moom jaara tegoon tànk moom ñu koy ndokkeel ci euh, cër boobu nga xam ne nii moom la ko sëñ Mountakha Bachir cërali gannaaw euh, cosaanu euh, Maam Cheikh dañu ñëw nag ci diggante Maam Cheikh ak Serigne Touba Cheikhoul waaw digganteem ak sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Bachir dañu ko nettali sëñ Bachiru mooy wéejuru sëñ Mountakha di doomi Cheikh Mat Bamba loo waaye jàng-jàng mu raw la lu waaye jege-jege sëñ Tuubaa mu gën la koo jege sëñ Mouhamadul Bachir boroom daarul minnan te lam lay nettali day wax sama baay Cheikh Rafaala ma nettali ma bind ah sama baay Cheikh Rafaala ma nettali ni mu ñëwee ma bind ñëwam ak sëñ Tuubaa lu jiitu nag muy ñëw wax naa la rakkam ju baax di ñuy wax sëñ Saaliw borom daarul Gafuur ku rëy wilaayaa ngoog sëñ Saaliw Fall ku mat di waxtaane xam naa dina am benn jamono bu ma duggee ci buntu seexi sëñ Touba yi ngeen laaj ma koy sëñ Saliou Fall waaye mooy rakki maam Cheikh Ibrahima Fall te topp ci moom moom yàlla mayoon na ko ci communication ñi nga xam ni ay jamaa daat lañu daana dégg li ñuy wax moom sëñ Saliou Fall keroog tam bi sëriñ Touba jógee ci tukki bu siiw bii di tukki bu géej gi le 11 novembre 1902 ba bato bi costé Dakar mag ñi demoon teerti ju sëñ Touba kenn amoon yaqiin certitude ni ndax sëñ bi ñëw na am ñëwul ko nee ngi toog di séntu rek mel ni ku yàng ko nee naan sëñ bi ñëw na am ñëwul cey tubaab dañoo bari pexe ñëw na am ñëwul bi di jot la sëñ Saliou Fall ni bërët ni sëñ Touba ñëw na moo njëkk a déclaré ni sëñ Touba ñëw na ñu ne ko faal lu tax nga wax ko mu ne ku dul sëñ Touba ëppi woo ma wilaaya bay laxas sama tànk te ci suba léegi saa su ma tegee sama tànk ci suufu Dakar mooy laxasu ma xam ne yaakaari jàmm ñee mën a nekk ci bato bii di ko laxas ñëw na seize heures la tubaab door a wàcc échelle ni ana maam Cheikh Anta borom dërëm ak gërëm borom daaru mu ne maa ngi mu ne ko ñëwal nga wuyu Cheikh Ahmad Bamba ñëpp daal di sar xole ni sëñ bi ñëw na kon sëñ faal la ko njëkk a déclaré bi mu amee juróom-ñaari at sëñ Saliou Fall di jàng ca sëriñ muttu fa Touré mu koy jàngal xam-xam alxuraan nga xam ne ci juróom-ñetti at la toll am na bis mu ni sëriñ bi fii ak timis dina am jigéen ju ñëw boot ab xaleel jigéen jooju ñëw boot xale bi nag xale bi raba ko jàpp muy say guddi te boobu juróom-ñetti at la am ni ko yow sama sëriñ su ñëwee sabbi isma nga koy bindal te bañ koo tomb nañ ko ko jox bu ko joxee dina wér ñu toog ba timis jigéen ji ñëw boot doomam nuyu sëñ Mutu fa Ture wax ko loolu mu ni tubarkal kon teel naa seeñal ay kéemtaan te jëmagul mag moom sëñ Saliou Fall moom nag mook maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo nekkoon ci tool yi xëy ci di bay nee nañu ñaxu sal guuf gi lañu ñu jëkki sëriñ Saaliwu Fall ni maam Cheikh Rayo Fall sa waaj yi ngay wër dey feeñ na ci jamono ki nga war a wani jaam ñëpp ñu xam nuñ koy liggéeyale di sëñ Touba woote na ci jamono ñaxu sal guuf gi moom a ko signalé keroog la maam Cheikh Rayo Fall noppee am yitte teeg gi nag di wëri sëriñ Touba wër gi tam am na diiwaankat yu ciy wax lu amul maam Cheikh Rayo ku civilisé la naan daa yéeg ci garab daanoog déedéet yooyu jëfi dof la du ko def ah dafa wëri ak diplomatie la wëri jee sëñ Tuuba sëñ Basiiru dañoo nettali ni sama baay Cheikh Rafal moo ne ma bi may génn sama kër di wëri sëñ Tuuba hmm. dama am yitte ju kawe xam ngeen yoonu murid yittee ko fondement yoonu murid wi yitte la sëñ yeerant bi wax sëñ Tuuba rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faxat lii la ko yenent bi digal wool taalibe yi ñu am yitte ju kawe ci ngërëmu yàlla bu ñu yemante ci njàngum kese kon yitte la am Cheikh Rafal yittee ko génn këram sëñ Basiru nee na sama baay Cheikh Rafal ma nettali murit bu mag ba noon la ko waxee murit bu mag ba murit doxool kabir la wax moo ma nettali ni ma moom génnul këram lu dul bi muy génn intention bi mu am damay seet ku àgg ci yàlla te man ma caa àggale wax da nga kaa dégg damay seeti sëriñ bu àgg ci yàlla te man ma caa àggale su ma ca mënta àggale mën naa koo wan ginnaaw wuti keneen hmm. waaye ki àgg ci yàlla man maa àggale moo ma tax a génn ma gisee nag ki àgg ci yàlla te man ma cee àggale donte damaa ñëw ñu ni ma génn na àdduna nekkatu fi waaye bàmmeelam ma ngi nii sama dogu man man naa yem ci bàmmeel bi te du jar ma gisee sëriñ bi liggéeyal bàmmeel bi ba am li ma bëgg ci moom am ngërëmu yàlla àgg lii sëñ Basiiroo ni sama baay Cheikh Rafa la ma ko nettali ki may wër itam ba ma eggee soxlawuma ci mbiri àdduna lu tol ni kem poids poids mooy nattuwaayu kawar xam nga kawar lu oyof la bu mu toll ni kawar soxla bu lu fi tol ni mbaar soxlawuma ko ci àdduna kon li ñuy waxal yi Cheikh Ibrahima yëpp ah liggéey yi la rek boo xamante ni maam bu Ndiaye la sëñ bi fay rek waaye Cheikh Rafal bala ñu ko xam bis penc ci taxaw mu war ni góor yàlla yëpp maa leen jiit nee na moom soxlawu la ilaha illallah Cheikh Ibrahim Baax yaay abo i jàngale la ilaha illallah la ilaha illallah لا اله الا الله تغفر الله يا ابا lay lay nando saraba la lay lay la la fa la lay lay nando jaxara umba ya abori jongole lay lay nando la ilaha illallah Cheikh Ibra baaxe aya aboori jàngale la ilaha illallah suru fala la ilaha illallah faal la ilaha illallah Cheikh Ibra baaxe aya aboori jàngale lay na na saru wala la ilaha illa la fa la ilaha illa la sikhira baxe ay abori jangale la ilaha illa la sikhira sara wala la no mom yelif ñoo fa wala mam sikhira fa buuri jaale hunda yaanu moome la ilaha illallah sarabal sigibin sigibin faal maam si xarafaal nani yàlla at lii yenn Cheikh Ibra baaxee ay aboori jàngale ku baaxee suru waagal na Cheikh Ibra baaxee ay aboori jàngale ku baaxul lool sara waagal na Cheikh Ibra baaxee ay aboori jàngale ku baaxee sara waagal la ilaha illallah la ilaha illallah Seex Ibra baax ñun dayaanu moomi wala ilala wala la ilaha illallah serva wala la ilaha illallah la ilaha illallah Seex Ibra baax ñun dayaanu moomi wala ilala wala la ilaha illallah sixiram baaxee ñun de yaa nu muumi fal ila na fal ila ila la sixira saraba wala la ila ila la la ila ila la sixiram baaxee ñun de yaa nu muumi fal ila na fal ila ila la فقراء بحق ñun dayaanu moomi akba ñun dayaanu wax lii yéen faqraa baax ñun dayaanu moomi akba ñun de serva yàlla faqraa baax ñun dayaanu moomi akba ñun dayaanu moomi